am mbekté trop di fi ñew ndax sa suñ fi ñëwee jëlé fi lu am doolé dañuy ñëw déglu dénkaanewaat suñu bop sakku ñaan yéssal suñu yéene ci réew mi waaye dañuy ñew it taataan déglu ci lu ñuy jox ci ay conseil ay recommandation ay digal ak ay téré ndax suñu kilifa mom tank ñu ngi wax ñu leen di dégg té di gor ci li ñuy sant rek défé na njuumte dina néew nit matul waaye tant que ñu ngi ci loolu njuumte dina néew moo tax wax ji nu munti ñëwee rek dañ koy jëlee noonu te xam ni ñoom defar rek moo leen tax a jóg amuñu benn benn ambition personnelle amuñu lenn loo xam ne lu ñuy utal seen boppal lu defar réew mi rek lañuy ut kon ñëw nañu euh, sëñ bi teral nañu yaatal nañu délégation bi sëñ Habib Sy wax na ci turu délégation bi yëpp sëñ bi waxtaan ak ci ñun ak ñun dénkaat ñu li nga xam ne euh, mooy ay ndénkaan yu am solo te lépp jëm ci lu baax ak luy defar réew mi luy andi jàmm luy indi dal waaye lépp jëmit ci loo xam ne day gën a dëgëral kóllëre yi nga xam ne ñun am nañ ko suñu kilifa diine ndax wax naa ko fi waxaat ko fi waxaat ko fi euh, bu duloon ñoom làmbaay ñaaw na fii ci Sénégal kon ñooñu bu la bu ñu yàlla mayee loolu te mu manké ci réew yu béré béré béré wala peut-être sax mu néw réew yu mu am dañuy yok fonku len gën len jox cër di len déglu te lolu tax tay bi amon na solo ñu ngi koy sante bu baax di ñaanal yalla mu yoko ko ci wér-gu-yaram yok ko ci mën-mën yok ko ci xam-xam yok ko ci am-am ndax am-am bi du pour moom sax waye naal yi nga rawatina université bi nga xam ne lu ama am solo la ci li war a defar nit dafa laaj am am yàlla na ko yàlla yokk ci bépp fànn ci fànn yooyu yàlla bàyyi ko suñu kanam lu yàgg yàgg yàgg yàgg di souhaiter sénégalais yëpp nag di ko souhaiter àdduna bi yëpp di leen souhaiter un bon màggal yàlla na màggal gi doon euh, màggal bu gën a màgg ci màggal yi lépp liñ fiy ñaan yàlla ñu ko yàlla nangul lépp li nga xam ne euh, euh, lu ñu soxla la ci luy defar réew mi yal na yàlla boole ko ci ñaaniñ fi ñaan lépp li nga xam ne luy gën a dëgëral diggante sénégalais yi la yal na ko yàlla ñu ngi ko nangul ci may màggal ci màggal gi ak ñaaniñ fi ñaan. waaw fii du ma fi wax politique lool moom ñëpp xam nañ ko ci man ëttu sëñ bi duma fi wax politique donc loolu bu ñu demee ba dakaar bu soobee yàlla dañ ci tontu.